otu ci coopérative de Malika ñu ngi alerter autorités yi ci li nga xamante ni mooy jàpp nañ ne dañoo bëgg a privatiser seeni plage muy plage bu Malika. waa un Malika un toit mooy li nga xamante ni mooy suñu slogan parce que dama jàpp ne Malika bu nekk dafa war a gis boppam ci Malika kër gu nekk suñ kër dafa xat ñun ñëpp suñ kër dafa xat ñun fa dëkkandoo suñu ay frère suñu ay papa suñu ay suñu ay nijaay donc mënuñoo am suuf bu doy nii ba pare ñun Malika waaye mënuñu faa am terrain. leneen tamit li ñuy laaj mooy ab l'assiette foncière ci littoral bi ngir ndaw yi ñu mun a am fu ñu dëkk. naa beneen affaire dafa ndaw dafa ndaw trop dafa ndaw trop ñun ñun lu mu néew ne on va cinquante hectares pour la jeunesse malickoise. ci fàttali littoral dafa nekk zone bu bari coow ci wàllu suuf mu nekk cas bu bi nga xamante ne dañ ci war a jóg.